yal nu teewe khutba gaak armal ga te baña a tay jaak jaag sëlmal ga way julle juma ci suuf di jaamu dal nañ ko baxal maynu lañ da taamu bi jaahi man yashfau yowma al-haqq عليه تسليما مميت الخلق aali wal asxaabi far yërëm nu bi xaadimil muxtaari far gërëm nu cig ngërëmam ka moo kuy jullit li feeg julli yi gën maa ji mbokki jullit yi mbokk yin ñoo ngi bàkk borom bi subhaanahu wa taala di ko cant xamdan lil di ko sant sukkuran lil lisaan xamd xolo def sukkuru lisaan def ak ñu boole ñaari cant yëpp muy cantub xuluub ak cantub jawaare muy ay cër yépp ñu jagleel ko jalla wa ala borom bi nga xamante ni kenn fekku ko ci ñun bi ni nekk lummu dereet mooma bi ni nekk ndox mu nekk gud lummu dereet moom la bi ni nekk suuqu ndawal moom la bim ñuy sàng jël suuqu ndawal nga dugal ko ci ay yax mooma bim ñuy tànnal wërsëgun war a dunde mooma huwa allazi yusawirukum fil arham kayfa yasa borom bi nga xamante ni fu mu toll moom ñuy laaj ana lan moo dox sun diggante ak moom ana kan moo ñu nar a nax ba tax dun ko jaamu moom te kenn fekku ko woon ci ñun yaa ayuha al insanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaak fa sawwaaka fa addalaka fi ay suuratin ma saa rakkabak borom bi nga xamante ni waxtu wu ne mu ngi lay fàttaliku étape yi nga jaar ba taxaw fi nga taxaw tey man li nga man tey ci xel di ko xalaat man li nga man tey ci kattan di ko taxawee borom boobee waxtu wu ne mu ngi fàttaliku naan xanaa du ki man bay def du man borom boobee mogi laaj ndax dama leena bàyyi ci aduna bi ngeen di dox ci num leen neex ak num leen sobe jàpp ni ëllëg ken du audit kenn ayaxsibul insan an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyin tumna summa kana alaqatan fa xalaqa fa sawa fa jaala minhu zawjayni dakara wal unsa alaysa salik bi qadirin ala an yuxyiya almawta bala ya bala ya rabbal alamin bala فتبارك الله احسن القالقين بقي بروم بوبي نك مو ني بند دي ني فاتلي البوبام تاني واتانديكو لو وقتو ني الشيخ ادم مون كاي واخ سانخ حفظه الله يالا يالا سام دغرل كي كين كوني بو دي جيغ سيرات امنا نينتي استوب يو ورا تخاو لا تزال قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربعه ñeenti stop yooyu taxaw stop bu ne dana am question buñ la fa laaj laaj buñ la fa laaj ndéggital la ko nga war koo tont yal nañ yàlla dimbali ban am làmmiñ wu sax wu mën a tonte mbokk yi fàttalintu tey gi mu ngi aju ci feebaru xol yi al amraadul qalbiya feebaru xol yi nuy wax ni moo gën a metti feebaru yaram yi al amraadu al qalbiya asaddu min al amraadi al badaniya feebaru xol yi moo gën a tiis te gën a naqaree faj feebaru yaram bokk na ca feebar yooyee bàkkaar bi njëkk ci kaw àdduna doomu aadama def ko feebar bin tànn tey ca la bàyyi ko muy kiñaan mbokk bàkkaar bi doomu aadama njëkk tooñ boroomam ci kaw suuf bakkaar bi doomu aadama njëkk a tooñ boroomam ci kaw suuf muy zan bu mooy zan bu mooy lu ko taq te bokkul ci moom ndax mu ngi bàyyi ko ci baatu zanaba gi firi génn zan bu googee mbokk yi bi ci jiitu te doomu aadama tooñ ko boroomam mooy kiñaan kiñaanu ko waral muy ban bakkaar muy rey doomu aadama rey sa mbokk moo bokkal ndey ak baay muy diggante xaabil ak haabil ñoo bokk ndey ak bàyyi aadama leen jur ak xawa waaye kiñaan dox ci seen diggante ba kenn ka rey kenn ka te kiñaan googa mu nga bàyyikoo ci labat jigéen gun soxla woon a takk ab taar ëppale keneen ka ab taar ci soxna su gën a rafet ñu jaare fa kenn ki ni du gëna ñaawle soxna keneen ki di ko gën a rafet la soxna ba tax mu rey ko mbokk iñaan kon mooy jàngoroy xol ju rëy joo xamante ni tas na àdduna bi lu baree bari ñaata kër nga gis tey bennoo woon ay cin benn góor di ko joxe wala ñu bennoo woon ay cin ku fégal jox sa moroom iñaan dugg si na tey ba kër ga ñu ber njël ya ñaata kër tey nga gisoon benn miir moo leen séq ak benn ëtt ki ñaan juddu na tey ba tax ñu séparé kër ga miir dox ci ëtt bu ne mbokk yi iñaan ci biir société bi kiñaan ci biir société bi ñaata entreprise ñoo tëj bis ni ki tey te la leen tëj du dara lu dul xalimaa fa jaar ci nit ku iñaane borom entreprise ba ñu cay liggéey mbokk yi ñaata nit ñoo dem tey nang faaw tukki kenn déggatu leen kenn gisatu leen ay ati at ñu def ko ci àll ñëwatul te xalimaa fa ci iñaan la jaaree mbokk yi ñaata ci ay jigéen ñooy jël ndox mu tàng di ko sottante ba dëwlin te dara waralu ko lu dul kiñaan moo dox ci seen diggante ngir kenn ku ne daa am looy xëccoog sa moroom muy am wàccuwaay ci kër gi di def ak dindi te kenn du ca man dara mbokk yi ñaan ñaata nit ñooy dox di sol ay sagar ci mbedd ñu leen di joxoñ borom xel yu rëcc te seen xel yu rëcc ya ci ñaan la jóge démb ñu ngi nekkoon ay kilifa nu nekk toogoon di yilif di joxoñ ñuy def am ku leen xool cër ba leen yàlla defal neexu leen mu jël xalima jaarale fa ba tax kooko mujj di ay sagar mbokk yi ñaata bikit ci bikit yi niy jaaye boo demee ca fa niy jaaye mooy marché ba ñaata bikit ñoo xëy tëj seeni borom la leen tëjloo bikit yi xamuñu ko te ku leen iñaane moo fa jaar amaana mu jaar ko ci àbb leen bagaas ngir weccalante gi ñuy weccalante ay marchandise wat ci bagage bi bagas dira bim def ci loxo bi am lum ci def bu duggé ci barab bi rek bu bagage bi delsi waté ci barab bi barab bi xelum waji do dootu fa toog borom khalima yi ñofa jaar mbokki ñaata ngay gis ci nit ku nawon ci barab xey suba ñepp xeeb ko te iñaan mo fa jaar mbokki iñaan Yananti bi sallallahu alaihi wasallam neena ni ngeen ko wattandiku ndax kat day lek jëf yu bax yi ngeen def kon sawara ni mi lekke matum sawara mbok yi iñaan nit ku iñaan likay yubbi ak kiñaan yen say dana xawa bari bok na ci al ananiya bëgg rek ñu joxoñ moom kese Diko ko kese naw mom kese diko bak mom kesse kese fam nek mu nekkon fa lolé mom rek lañuy ñuy dégg aw turam mom lañuy dégg ay am ku ñew na sës ko ci wetam man lamu man diko défé nam ko défé ñuy tudd aw turam ci wetam xolam di nuk nuxi ba tax mu juk di wuti pexé Serigne Touba mo ngi wax ci masalikur jinan nit ku iñaan bokkon ci sabab yi ko ko yobbe moy al infirad hubbul infirad wala yasurruhu siwa infiraadi bi dikri wal mad'i la dal yi dara du ko bégloo lu dul ñuy wéet di tudd aw turam ak di ko bakk ak di ko màggal walis ñuy tudd keneen ca wetam mu ne dem na ba ci sëriñ si sax iñaan dugg na ci biir kër sëriñ si kiñaan day dem ba ci nit ku baax day tàbb ci nit ku baax ku ne naw kiñaan dafay dugg akuk fiiraange mbokk alquran netti nañu nit ñu bax di ay doomi yonent yu am ak kiñaan gu dox ci seen biir ba ñoom yonent doomi yonent yoy di yonent yalla yaqub ay domam am nanu kiñaan ba tax ñu jël seenu rak yonent yalla yusuf alayhi salam di ko ci aw question yante gon moy nan ko faat ben yon dootu ñuko gis wala ñu fexé ba nawtal ko dootu ñuko ko wala ñu tabbal ko ci teen bi mu jaare fa faatu uqtuluhu yuusuf aw itrahuhu arday yaxluq lakum wajhu abikum li muy bëgg mooy li nga yor ñàkk ko boo demee mu wuutu la wa takunu min baadihi xawman saalihin allahu akbar li ko ñor ci sa bopp li ko ñor ci kiñaan gi du dara lu dul di baadihi qawman saalihin gannaaw bu la iñaanee ba def pexe ci yow nga jóge fi nga nekkoon mu wuutu la mbokk yi fa kam min barin wudiral aimma ñaata min bar la ñu xam ci gox bii kees li ko wër imaamu raati ya ca daan taxaw di xutba ci xaj na leen min bar ya xam na ni imaam yoo xamante ni ci kaw yi min bar saa yuñ te yéegee hôpital régional la ñu yeewu jee te mbokk yi imam yooyee ña leen teg loolee ñu ci biir jumaa ji lu sori dara bu joxoñoon tey rek ñun ñëpp ñu xamandoo barab yi mu am imaamu raatib yu nu fal ci gox ci imam ci jumaa ju nekk ci gox bu soriwul soriwuñu lenn dafa mujj bàyyi jumaa ja julli juróom sax tegatu fa tànkam ba xutba ajjuma mu koy ñemee saa yu tegee tànkam ci ajjuma ju xutba khutba gu du yegg day xam di sëqat hôpital régional dana fa def semaine ba ajjuma jël wat ta sayu jaru ja ni imam bu nu xam dem na fune di fa faju ay tank bu toge gej jumaa ja tank ye ya wir waye saa sayu tank ya tane bam tek teg ci jumaa ja tawar ga dal ko mujj sax da far di noppal te ka ko ko du góomba boo ko dee wax dana la du góomu bitim rew gom bi góomu senegal la senegal rek lañ ko mara fak ta fo dem dañ nan la ko sës ci yow rek ngeen di weccante ay mbir mo la ko tek mbokk ki jam di jàngoro ju bon yo xamanteni bawut sax nit ñu bax nit ñu sell bi nit ñi ñu yaakaar am nag tawat la xamante ni day dal ñu bari yéen yàlla musal ñu ci mbokk yi ki ñaan yóbbe na kilifa gu mag buy nettali bu nu xam ci dëkk bi jiite na ci jumaam ñi muy jiitee si jot ci mihrab bi si jot ci sijaada bi ab bijjën jam ko mu yëkkati sijaada bi yam ci béjjën wul tàkk sagar wu xonq jël ay turam bind ko ci xaatim dugal ko ca biir bi mu tekkee lépp mu gis ko li may wax nag soriwut fii ci suñ yi la nekk mbokk yi ki ñaan ba ci biir jumaa yi yóbbe ne imaam ci gox bi mu sujjo rukkoo am ku toppoon ca ginnaawam dim naa ibam jëlub doq doq yi nuy jàppoo ni ko ko tëdd ci ndigg ginnaaw mu jaare fa amul ndig bani ni bani ba aduna génne àdduna billah mbokk yi ki ñaan mbokk yi ñaata nit ño xey làgge seen xel dem ñi def yaramu neen ci bet te ki leen ko tek du kenn nañ ko dul ko ñaan mbokk yi ñaata barab lañ fay tej kenn mënu ko luyé ba jaay fa dara lu sotti tak ka def loola dafa nekkoon ca barab ba doon luubal ñu génne ko fa mu am lu mu def ca barab ba ba ko fa duggaat ko ne du sotti mbokk yi feebar yi ne ci xol yàlla yàlla musal ñu ko mbokk yi ñaata nit yàlla dénk alal ñu yor ko mën a ay nit waaye dañuy taxaw di ko xool mu tawat ordonnance bi koy yëkkate mu ngi ci seen poos waaye xol baa nanguwut ndax ak kiiñaan gu dox ci seen diggante mbokk yi ñaami bokk bàyyi dem nan ba iñaanante ba kenn ka bu dee jaay loo soxla doo ko jënde ci moom doo ko jënde ci moom ndax jàpp nga ni jënd ki da koy yokk ak am am te nit ku iñaan nag du bëgg mukk ki mu iñaane di yokk mbokk yi ki ñaan tawat la joo xam buñ ko toppoon tey di ko lim lim def ci société bi kenn du xam ne mu toll waaye ñaata ci jigéen ñoo gannaaw togguk seen moroomub jigéen xorom ko ngir du am ndam ñaata ci jigéen ñoo fekk seeni mbokk jigéen fóot ba setal weer ñu jaare fa takkal ko ngir bañ mu am ndam ñaata ci jigéen ñoo fekk seeni doom seeni doom di fo ñu xejj ñenn ña ber di leen sa ay baat di leen sa ay baat yu ni xeebe ña ca des ak di leen daw ngir giñaan ñaata ci jigéen ñoo xëy dem ci ay boroomi xalima tey la seeni or seeni lam seeni lépp ngir seen mbokkum jigéen mu ñëw ci kër gi bëgg fee liggéey nar fee am ndam tan xam ni ku ko bàyyi mu am ndam ñu jëlal ko pexe ba xel ma nang faay mu jóge ci kër ga xëy xëy dem bokk yi ñaata directeur société la seeni employé gën jekk ban génn barab ba mbokk yi ñaata ñaata labat la ñuy labat ba yaakaar ni takka ca des ki jaar fa yàq ka doon labat ba tax ba mbokk yi ñaata jigéen ñoo xëy ñoo am doom te ka leen a am tee am doom ak ki ñaan la bun dem jël ci xalima bind am fu ko jaare ci ay taysiya mboolem ci yàlla dimbali nag ba am lu la dénk ci lasraar am lu la dénk ci xalima na nga bàyyi xel boo tëddee ci bàmmeel bari na loo am ci société bi borom xalima yi rek ñoo ko waral te ndax xaalis moo leen ko yóbbee te wala tastaru bi ayaati samanan xalila mbollem ku jàppale nit nit ci bakar bu ëllëgé fun ko duma duma la bari na li ne ci société bi ci jafe-jafe bari na lu ñuy dund ci mettit ñi ko ko yóbbe ñep moy ñu yàlla dénkoon sekkare ngir ñu xettali ci jami far ñu ci lor jami wa damiran kulla aadain tudurru bina qabla alwusuli lana ya allah wa kullana asiman min kulli mahlakatin wa najjina min balaaya dahri yallahu wa aafatin hahatin ma qussatin mianin زلزلة شدة والفقر يا الله إهانة غلة مع زلة غلب وفاقة عتس والجوه يا يضاه يلنا نتاوي خد بقاك أرملغ يبني ووت تايجاك سلملغ واي جلي جماعة صوف دجام يلنا نكو باخ المين لنداتام بجاه من يشفع يوم الحق عليه تسليما مميت الخلق بالآل والأصحاب فريرمنو بخادم المختار فرقرمنو تيك كتخنو حمجو ماجي موكي جلد لفيك جن ماجي